kon est-ce que fii mooy Salmez vous et nous ah ah ok wop wop wop wop wop wop sama waa kër <laughs> oh là là oh là là là là mais Ndiaye ay waay yow waay yow nangu ko kontaan naa waay ah woo yow ku la bàyyi xoolal xoolal ci suuf grand maa ngi tuub de ah. mais yow doo def dara waaw maa ngi tuub maa ngi leen di da nga bëgg montre waaw tey dama lay jox dama lay jox bu or. bu or. nga ni ma. Ah, yow yow da maye. woo pop pop pop non def teraanga. waaw. et la ma may. mais nag yóbbante de. ah nu noonu. waaw sëñ Moustapha Dramé yàlla kese moo ne ma joxal ma ko waale. Ah. loolu kot la. loo tey doy. non non xam nga lu tax ma ne cote la bi nga nee sëñ Moustapha Dramé yàlla ay kese. waaw loolu cote la. waaw macha allah macha allah. macha allah alors sister comment vous allez. bonne heureuse année prospérité beaucoup de bonheur ah. ah loolu la ñu wax. bien et et Moustapha. moom mooy xam nga Sénégal am verte zone rouge plus étoile étoile baa ngi nii. yaw yaay bonooru réew mi yaay jàmmi réew mi xam nga lu tax nga neex ma doo néew di doole yee la ñeme foo gaare sa oto ñu wër la Maria Sine sama kata barewul ñaari junni laa def ci yow lii dama ko def ci yow di wax nag ni tey c'est le grand événement parce que fin d'année la ne sama mbokk bii di Umaro nga xam ne bu ma liggéey 2S moom moo tax nee ko tey le premier janvier na joxe dernière bakkanam officiellement ci Maria